أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيق إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaam ala asrafi al anbiyaai wal mursalin seydina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki yaraax ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a jot ci nuyoo yi te mooy nuyoo bi lislaam di leen ziyaara itam ci weer wi nga xam ni mooy weeru safar sëriñ Touba wax ci lu am solo fataxta baaba shukri fi shahri safar tayiba nafsin duuna durrin aw safar nee na weeru safar fu mu teroo rek bunti cant yàlla yépp day ubbeeku kon nag bu ñu ci dajee ci weer wii fekk yàlla dogal ci li mu ci dogal te jaarale ko ci cheikhul xadim ak njabootam daje fii sëñ Abdou Samet léegi la fi jóge loolu mënuñu am lu dul am ci mbégte ak sant ci di rafetlu bu baax nag teewaay bi sëñ Abdou Samat teew fii ndax keroog mbokki yaraax yi bi ñuy ñëw ci moom dañu fa daje bi ñu ko waxee projet Kër Sëñ Touba gi ak bis bi nga xam ni bëgg nañ koo taxawal sëñ Abdou Samad ni leen man danaa ca teew geesu ni ma yow ñoo ciy ànd loolu moo waral bi mbokk yi ñëwee waxtaan it am benn mawdu boo xam ne tànn nañ ko ni ma naa ci naa ci waxtaan ñuy nuyu nag bu baax kilifa yi nga xam ne yëpp fekk nañ leen fi di ci jiital sëñ Mouhamed Mbacke di nuyu waa daayira bi yëpp teg ko ci loxo sëñ Modou Diouf waaye di nuyu tamit Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ni fekk nañ ko fi maa ngi fi ànd nag ginnaaw bi ma àndeek sëñ Abdou Samad ban ñëw fii ba noppi mu war a dellu Touba sama wëllëre woo xam ni yàgg na ma ak moom def na ma moom lu ëpp ñeent fukki at ak nangam muy Cheikh Mouhamadou Bamba jóg maa ngi koy ziar bu baax a baax. thématique bi ngeen tànn nag lu yaatu la ndax mënees na ciy waxtaan fii ba déwén te duñu ko jeexal. ndax lan ngeen wax taxawaayu sëriñ Touba ci lislaam ak i jeexitam kon mel na ni fees dees na xam lan mooy lislaam te loolu waxtaane ko fi mu ne mënees na cee waxtaane ay weer ak taxawaayu cheikhul xadim ci boppam moom mi nga xam nit xëñ na mënees naa am lees xam ci moom waaye lees umpale ca moom mu ëpp ak nag jeexit yi nga xam ni am na ko ginnaaw taxawaay boobu ci tool bi nga xam ni wane na ni moom mooy tool bi mu tànnoon ndax Cheikh Abdoul Ahad daana ko wax lu bari nee na sëñ Touba fi mu tàmbalee rek mooy diini ya xubbullaahi ma hubbi ladi li hidaa xama liya walil munaajama bila azan aw kadari xëñ na duma mën a topp étape yi mu topp yépp ba na mu yegg ca fa mu yegg waaye ñu xam rek ni fii la tàmbalee waxtaane loolu nag lislaam dana bokk rekk ci loo xam ni dees na ko ci leeral lislaam diine la joo xam ni yàlla moo ko tànn wàcce woon ko ci mbooleem ndaw lu mu mës a yónni jox ko ko mu am yuq am aw xott itam yuq ak xott nga xam ni xott wi mooy enveloppe bi nga xam ni moo koy muur yuq wi nag mooy la ca biir surtout loola moom danaa ci danaa ci ñëw mboolem yonent yi yàlla mës a yónni yépp kenn ku ci nekk li nga seede te wax ko mooy li nu borom bi digal mooy wa umir naa li nuslima li rabbil alamin li nu ñu digal mooy ñu jébbal suñu bopp suñu borom nga xam ni yàllaay sa kilifa moo lay digal moo lay tere moo la tënk yi tamit te mel na ni fu nu xoole téere bi yàlla bi danañ ci gis lu ko mandargaal ak lu ko firndeel mooy bu leen faatu mukk te jébbalu leen seen bopp seen borom wala tammatuna illaa wa antum muslimun bu kenn faatu te jébbaloo sa bopp sa borom lii rek mooy diine lislaam ñu mën koo jàngate nag ci xadisu Seydina Omar boobu nga xam ni ñépp xam nañ ko siiw na nee na bis toog nañu ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na am benn waay boo xam ni dafa dikk te ñun xamuñu ko waaye it yorul benn màndargam ku sonn walla ku tukki ndax xam ngeen ni léegi la tukki yomb nit mën a jóge fu sori yegg si doo gis benn màndargam coono walla fënd walla poussière walla dara ndax mën naa dugg ci oto climatiser ko daw ba jëkk si mel ni dafa nekkoon fii sa wet rek ñëwaat fii ci ci lu soriwul waaye booba ci désert bi ngay xuus ay fan ngay def amaana giléem ngay yor danga fënd da nga ku la gis dana xam ne yow mi danga tukki waaye nee na mandarga yi yëpp gisuñu ko ci kooku nee na it xamuñu ko du ku dëkk ca dëkk ba koo xam ni xam nañ ko nee na kooko ñëw fekk leen ñu toog mu dox ba agsi ci seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na daa di yegg si jël ay wóomam sës ko ci wóomu yonent bi jël ay loxoom teg ko ci ay kaw poojam nee na daal di koy laaj ni ko yow mi nga xam ni yàlla daf laa yónni lan mooy lislaam mu ni ko lislaam mooy da ngay seede ni amul benn buur boo xam ni yeyoo nañu jaamu ko ku dul yàlla te man yonent bi muhammad seydinaa muhammad ci boppam mooy ndawam li mu yónni ci dëgg ni ko nga taxawal julli joxe asaka woor weeru koor aj màkka yi tamit ci boo ko manee nee na ki doon laaj daan ni ko wax nga dëgg nee na ñoom ñuy yéemu koo xam ne yow yaa ngi laaj ba noppi xam sab laaj buñ ko tontee xam nga ndax dëgg la am du dëgg nee na loolu def kéemtaan ci ñoom nee na mu dellu ko laaj ni ko lan mooy imaan mu ni ko imaan mooy nga am pas-pas muy wéetal yàlla gëm yàlla gëm ay malayikaam gëm téere yi yàlla wàcce nga xam ni du caageen da nga naan alxuraan rek laa gëm déedéet téere yi koy jiitu it da koy gëm gëm benn téere boo ci wet di génn nga ci diine da nga koy gëm kon dangay gëm yàlla gëm ay malaykaam gëm téere yi mu wàcce waaye gëm ndaw ñi mu yónni woon laa nu faraqu bayna ahadin min rasulihi yonent yi ñu yónni woon amul xejjat leeg teqale goo ci def soo nee gëm naa Seydina Muhammad te weddi kenn ca yonent yi jiitu woon moom def nga xay weddi nga yonent bi mu ni ko ginnaaw boo gëmee yooyu it da ngay gëm bis penc ba ni am na am na taxawaay boo xam ni mbooleem nit ñëpp danañ ko taxaw ci kanam boroom kenn ku ci nekk say jëf taxaw doon sa seede waaye tamit nga gëm ab dogal gëm ab dogal nee na mu ni ko wax nga dëgg mu ni ko lan mooy nag ihsaan ak rafetal mooy mu ni ko ngay jaamu yàlla kem mel ni yow yaa ngi gis yàlla ndax su fekkente ni gisoo ko it moom yàlla mi ngi lay gis lii moom mooy li tënk ñetti ñetti arkaan yi nga xam ne si moom mooy diine lislaam kon civilisation boobu nag yàlla tànn yonent yi kenn ku ci nekk am loo ci jëf ñu koy tabax mel ni édifice boo xam ni ku ci ne am na benn pierre boo ci indi ba mu mate ci seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam mu am équation boo xam ni dañ ko waral a régler ci doomu aadama mi nga xam ni moom lañ ko jëmee ndax alxuraan bu ñu fàtte mukk ni dëgg la naam ci yonent bi lañ ko wàcce waaye nag ci nit ñi la jëm inna anzalna alayka alkitaab linnaasi bilhaq ci moom lañ ko wàcce waaye déedéet du moom mooy destinataire bi nit ñi lañ jëmee alxuraan moom borom bi nag mu am lu ñu xamal ci doomu aadama ak ni mu ko bindee muy mbindum njaxas moo xam ni lu nee nga ci biir doomu aadama mu mel ni dafa am ay équation yoo xam ni à plusieurs inconnus la te nit ki war a régler loolu nga xam ni défi bi dëgg dëgg dëgg moom mooy moom mooy mbir moom mooy yàlla daf ñoo bind ci nature boo xam ni am njaxas la jox ñu ab dégg jox ñu ab gis ba nopp joxoñ mu dema dema dem ba foo ko seen mën a attana foq sa mbaxana ñëw ziyaara ko sëriñ bu matub sëriñ lay def loolu lay def ci ab taalibe su ko defee ba noppi nag am na yeneen ñaari étape yoo xam ni tege na ca xam naa ni waxtu yu moom dul may ma ciy dugg waaye mën naa ni benn bi rek mooy maqaam yi nga xam ne sii maam Cheikh Ibra ci la taxaw mooy hubbu cheikh yi bëgg sab sëriñ loola it sëñ tubaa firiwul ni lii daf ñu koo joxeñ moom moo ca njëkk jaar di dox ba ca tolloo la wax ni daxaani ilamat yi na bi xubbu zaatihi daxaani ixdaami na bi xubbu zaatihi li may tagg yonent beeg di ko di ko liggéey lépp nee na bëgg jëmm ji dong dolliwuma ci dara kon loolu yi tamit beneen phase la ba ngay dem ci dernière phase bi nga xam ni képp kuy ab murit war ngaa aspirer yegg foofu ndax foofu mooy mbir mi dëgg dëgg dëgg loolu nag sëriñ tuubaa def ci réussir loo xam ni ku xool gis nga ko ku làmb dañ nga ko ndax màndarga yi doomu aadama li jafe du xam-xam de déedéet ndax jàpp naa ni xaw ma nu ko boroom xam-xam yi gisee waaye jàpp naa ni ibliis kenn sutu ko ci xam-xam lahnatullaahi kenn sutu ko ci xam-xam waxuma lool sax waaye nangoo jëf ak nangoo topp jëf na ci lu rëy rëy rëy ba daanañ ko misaal ci misaal yu bari waaye ana fu mujj tey ñàkk nangu dogalub yàlla moo tax lu ko dal dal ko ñàkk nangu dogal tax na lu ko nangu dal ko lu ko dal rek dal ko waaye màndarga mi ni gën a xam ci murit am murit mooy yàlla moom dimbalee na murit yi ak rëy dañ ci ñoom te iblis lii rek a ko yàqal rëy te doomu aadama yi ñi ci ëppit lii bokk na ci leen gàllankoor muy rëy te waxuma murit waaye li nu xam ci ñoom ñëpp mooy te ñu màndarga ko mooy murit dañoo woyof nga xam ni mën ngaa génn ni wàcc joggi ci benn mbokkum taalibe moom ma nga joggi moo naan la sama sëriñ jéggal ma de fi mu ne loolu moo jafe ci àdduna bi xam nga mbir daf lay jege jege jege jege ba mën naa bañ am valeur bi da ko dul xam waaye gis nañ fi guerre mondiale sax am nañ fi nit ñi ñoo ngi reyante ngir ay intérêt ak yeneen waaye biir loolu jafe na lool nga gis ko ci ay murit ay murit nag laa wax ay murit dëgg ndax la sëñ Mbay Kayra waxoon rek murit daa am mërit am muraat am dëgg la naam mënees na koy yokk sax mëriirandoo am na waaye murit laa wax loolu doo ko fekk mukk ci moom yàlla dimbalee na ko loolu teqale na ko ak rëy moom kon kooko li ko desee mu dem bareetul murit yi li gën a jafe te yàlla may ko sëñ Tuubaa it mu def ko ci ñoom te keroog ba muy woote ca Mbàkke Kajoor it moom la tudd mooy yitte ju kawe himma te àdduna si yi ñu ne booy wut àdduna yitte booy wut yàlla yitte ku bëgg ñaar yëpp it faw nga am yitte te li nu gis ci li nu gis ci sëriñ bi bi mu fi jógee tey ak dëkk bi mu fi bàyyi ndax wax ne sëñ Touba fàggutee fa mu weesul woon ñett Touba la téere bi yàlla bi ak taalibe yi bu dee taalibe yi kenn ku ci nekk wan sa bopp lool wan sa digganteek sa boroom lool wan la sa digganteek sa sa bor moom loo xam ni bëggatoo doon sa moroom nit ñi xamul ñi xamul ñooy wax li ñuy wax waaye amul kenn kuy jóg te la ko tax a jóg mu xam ko dem ci Sëriñ Tuubaa ba loola mu am ko noppi am ku muy ñeeti amul amul misaal mi sëñ Abdoulaat daan na ko wax buy wax ba yàgg daan ba ci man Abdoulaat mu bon mi am njàngale la am njàngale la waaye amul kenn kenn kenn laa wax ba ci sëñ Touba sëñ Abdou Lahad ko wax moo tax ma ñeme ko wax dafa ni sëñ Touba weesuwut lii may bëgg a wax ya umu nii ridwaanu min kulli wijatin wali xida yum ni zikri wal xatti wal xalam weesut am ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla la am ñi ko doon wut ñëpp it ngërëmal yàlla leen taxoon a jóg moom la ñu am ñi xamul nag fi mu ne ñoo ngi mel ni yoon wi def nañ ko euh, xaw ma euh, ay nawetaan lañ ko def xaw ma euh, areenu làmb lañ ko def kii man kii kii man kee kii man kaa kii man kële ngërëmal yàlla rek la ñu wut ku xam ngërëmal yàlla lu tuut nag yaa ko xam man xaw ma ko ndax Cheikhul Khadim dafay wax nii nee na bis pénc ba luñ mas a gis moom sëñ Touba mu sonn ko nee na benn baat la doon wut ci yàlla ak yonent bi te loonu am na ko ba pare ma wax leen nan ma bàyyi ko ma ko bàyyi rek sëñ ma bàyyi rek nee na luñ ma mës a gis ma sonn ci moom Seexul Xadim nee na benn baat laa doon wut ci yàlla ak yonent bi te am naa ko ba pare nee na képp koo xam ne nag bokk nga ca ña tax ma am baat ba nee na yaay ki ma dimbali kon manees naa dimbali sañ Touba nee na képp koo xam ne bokkoo ca ña am baat ba na la woon ni féetewoo ma fenn defaloo ma dara loolu lan la sëñ Touba nee na bu bis penc ba nit jinne ak malaaka ñépp teew nee kenn du ko wuute nee na ba ya fay xew-xew fa yonent yi kenn ku ci nekk taxaw fa nga taxaw nafsi yi ba Seydina Muhammad jóg dem sallallahu alayhi wa sallam wax ak boromam ba am ndigal delsi nee na bu delsee ci pencum yàlla mi moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na danaan yi ak mursalina yi féete leen ma ci wet gii ndax alxuraan wax na seen mbir ba noppi wa tarakna alayhi fil axirina salaamun ala Muusa wa Haaruna salaamun ala nuuhin fil alamina salaamun salaamun joo mën a néeg dégg rek innahu wala innahuma min ibadil muminin inna kazalika nahjil muhsinin foofa cour d'appel amu fa cour de cassation am fi li yàlla wax mooy am te nee na ñooñu am nañ lañ bëgg ba pop noppi am déet nee na mu ni yéen sahabatu rasul yéen seen seede waaye am na lu alxuraan wax ci yéen laqad radiyallahu anil muminina is yubaynako taxta shajar wa saabiquuna na awwaluuna min al-muhaajiriina wal ansaari wallaziina ittaba'uuhum bi ihsaanin radiyallaahu anhum wa radu anhu kon yéen it jàll leen nii alxuraan wax na seen mbir ba noppi te man seede naa ko fi mu ne pencum yàlla ma la muy yàgg yàgg yàgg yàgg ginnaaw yonent bi képp a ko yàggal ñun ñii ak ñiy xalsata ñëw suñu ginnaaw ak ña ñu jiitu woon te fekkewuñ jamono yonent bi loola na ginnaaw yonent bi ci ñëpp lañ ko yónni